auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asraf anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar tey woo képp koo xamante ne bii ab jullit la wala muy nit ku bëgg lu baax tey bañ lu bon tey bañ tooñ te am respect ci ñépp maa ngi lay woo ci e, ndaje mi mag mi nga xamante ne bii mbooleem ñooñu ma lim léegi ñu ngi koy waaj a amal gaaw bii dajee ak juróom-ñaari fan ci weeru novembre ca Dakar ca place Obélisque ngir naqarlu ngir wone seen féete ak seen ànd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa moom nga xamante ne bii am na ñu jóg gannaaw bi nga xamante ne eh, am na ay seekal yu bari yoo xamante ne bii eh, réussir na ko ci mission ba ay milliari yi doomu aadama wóolu ko topp ci gannaawam yonent yonent boobu képp kum ñor war ngaa taxaw yonent képp kum ñor war ngaa taxaw naqarlu li nga xamante ne bii moom la ñenn ci ay nit wala ay réew di bëgg a jël di ko teg ci jaram te yëllawut ak nag képp koo xamante ne yonent bi ñor na la képp koo xamante bi def nga ko muy sa référence war ngaa jóg naqar loolu comme ni ko am Ahmad Bamba xaadimu rasul defe ba firndeel ko ci ay woy ne xaddi wiqaayatun li rijlil mujtaba min shawkatin wa ma yudaahi aqraba mu ne jël na la xam teg ko ci suufu tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir fegal ko lépp loo xamante ne bii lu koy war a mën a lor la moo xam ak dëgg la moo xam jiit la moo xam jaan la moo xam leneen la kon nag ñun ñëpp war nañoo futtiku dox di suñ digg diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lépp luy mel ne luy jël lu jaaduwul yellawul ci moom di ko ko teg ñuy woo àddina bépp ci ñu am respect ci doomu aadama am respect ci gëm-gëmi doomu aadama ndax kat loolu mooy indi jàmm loolu du loolu nag kon jullit yëpp war nañoo taxaw ngir feeñal di jikkoy Seydina Muhammad wane ko di ko sargal te itam fexe ba doon ay exemple yoo xamante bi kenn du mën a yegsi ci moom te romb leen ba noppi loolu nag xam-xam lañ koy defee ak jàmm ak